salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu mbokku Touba TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen bëggee di kontaan ci yoon ci yéen lal di bëggee suñu sponsor officiel muy Bamba Imo tey nag ñu indil leen xibaar bu tiis boo xamante ni fële la xewee ca xombal ca quartier bi nga xamante moo ne ci wetu marché ba ah, xombal nag lafa xew mooy soxna suñu naan aadama faal ak ñu gën ko xam ci aada Fall ak ah, Pam Maguette Fall ñoom ñi nga xamante ni ay faaleen lañ ñoom ñaar ay way dencante lañ woon waaye dañ demoon ba seen sëy ñoom ñaar mujj tas waaye Pam Maguette Fall moo mujj ñëw ci kër gi fekk fa aada jël ay paaka yu bëri jamat ko ko waaye loo xam ma ba ma dem ba gën laa xam boppam nañ déglu mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo teewoon foofu dëkk xombal ñu wax ñu mbir yi nan la def li xew démb xombal sama rakk la maa moom ñoo bokk ndey ay doomu ndey lañu nii la def affaire bi demee xale bi da doon sëy ak moom yàlla def ñu am nañ juróomi bant ñu dema dema dema dem ba yàlla def sëy bi dañ ñu tàqali ko ñoom ñaar léegi nag bi mu ko ñun sax wax nañ xale bi pour mu ñëw fii ñibbi si cees léegi nag mu ne moom xale yi jàng moo tax day bàyyi ba école tëj ñu ne ko waa léegi bu école tëjee ak jàmm ak salaam nga ñibbi si cees mu luwee noonu entrée xombal bi noonu sore naag fi waa ji dëkk waa ji ñëw na fa poñesi ko benn bis bi mu ko poñesee naan ko sama bu ma whatsapp xaw ma lan bu ma enregistré bu ma xaw ma lan kenn xamul waxi waxi lan la wax ndax waa ji da doon tux di di di di drogué wu bi ñu demee ba tàqalikoo noonu mu wax sama rakk bi dem gendarmerie kalaame ji ko waa gendarmerie daal di woo waa ji ne ko sa tànk bu fa tegati sa koñ ba sax sa buñ la fa déggati buñ la fa déggatee rek danañ la tëj ci kaso bi ñu daal di koy bàyyi mu ñëw ñu defa ne jeex na ba démb ay boori 11h ñu woo ma ne ma ah aada de Pape Maguette jam na ko jamate na ko ba ba nee ñu yóbbu hôpital moom ci boppam naan produit dee da doon daw far far kii daanu dee nii lañ ci am jam na aada nag fukki jam ak benn aadaa nga ne hôpital régional mu nga nee hôpital régional jam-jam ya metti na lool lool lool waaw fukki jam-jam ak benn la ko jam da ko doon rey dafa defe ne woon dee na pour moom it bu deewee rek moom mu dee ñu ànd ñoom ñaar dee far yàlla def aada mu nga ne hôpital waaye sonn na te tasoon nañu tasoon nañu ñoom ñaar sëyuñu woon tas nañu tas nañ bu yàgg waaw tas nañ bu yàgg lu nekk nag ñu ngi koy dégg nii la def affaire bi demee dañoo tasoon nangu woon na fi tamit téléphone am bi mu nanguwoo woo téléphone am nit ñi wax ci ba mu wax papaam na ñëw ba ñu ba papaam ñëwee ñoom ñëpp ñu wax ci ba mu delloowaat ko téléphone xale bu jigéen bi teggi fi nattam ndax da koo tàmmaloon du ko bu teggee nattam rek jox ko ko teg ko ci loxoom ñu gérer ndax ñoom ñaar comme ñoo bokk kër bokk njaboot gi dégg nga léegi nag natt bu mujj bi bu mu teggee nag mu ne na ko ko jox kooku it bañ ne du ko ko jox ne du ko ko jox mu bañ joxu ko natt bi affaire bi daal foofu la commencé mu nangu tamit kii boobu këyit boobu bourse familiale boobu këyit yi ñuy li ñuy fayee ko bourse familiale mu nangu ko bi mu ko nangoo dem na sax di fayeeku ji ñu ne ko yow doo ko fayeeku sa jabar moo koy fayeeku këyit ba noonu la ko nangoo ba léegi xale bi jigéen bi yu amul amul këyit bi ba léegi lii yëpp xew xombal ci diggante xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi. ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ni dégg ngeen soxna si li nga xamante moom la addu yéen yéen di teewlu yéen internet Touba Mbella TV léegi nag analyse bi nga xamante man moom laa ci def personnellement mooy gis nañu jamono yi temb sëy yéen yëngu na lool bëri na lool ay violence rey na ko jàpp na ko soode na ko def na ko lu ñaaw loolu rek la gis ci sëy yi amul fan yu yàgg ki nga xamante dugg ci biir sëy yi kon nag mbokk yi nañu jéem a xool lépp ngi li nga xamante ni moom la ñuy dugg surtout sëy yi nga xamante ni léegi mi ngi fii ci Sénégal taxaw seetlu la boo xamante ni defoon nañ ko jot ngeen dégg ndaw si li mu wax léegi nag kenn ku nekk mooy xool ni mu koy analyser mu nekkoon seen xarit seen mbokk Pape Ousmane Ba fii ci Touba Mbella TV chaîne bi leen nuru di leen jox li ngeen di bëggee ànd section sponsor officiel muy Bamba Imo